kon bu ñu wootee ñaan dañu xam ne nag ñaan bis bu nekk baax na ñaan jamono bu ne baax na ndax moom la ñuy nuyoo moom la waaye événement yi ñu toll nii ak situation bi fi mu toll ci Sénégal parce que tamit ñun dañuy yokk envergure bi duñ ko particulariser rek si dañuy yaatal au niveau national parce que tey démb rek ki ñu faatu fale Tambacounda ay mbokkam ngay xaar yàlla fi di ñu dégg kon xam nga ni kon foo ci laal rek ñu yëg ko kon bu ñu wootee ñaan defe naa ni ñun wàcc nañu. te nag defe naa ñaan nag commencement loo ko boolewul ah, yàlla nag loo ko dugalul rek mu toog di la xool xam donte moo ko moom. kon dañuy woote def ñaan def jàmm moo tax tey ñu woot imaam yi ñëw délégué yi ñëw bàjjenu gox yi ñëw. Ah, monsieur le maire yebal na fi ndawam léegi euh, Ndeye Diop mi nga xam ne mooy présidente affaire coutumière et religieuse moo fi teewoon léegi dafa ñaan léegi mu ne mi ngi yeeweeku moo tax ñu woo bàyyuñ kenn waa marché bi aussi Moussa Dieng Mansour mi ngi teew comme ni ko imam Aliou Sow waxee mu mel ni ah ñun li ñu wax rek mooy ñun ñun ñun dañ njaboote ñëpp jaaxaan la ñuy jaaxaan la ñuy toogee jaaxaan la ñuy ñun amuñu candidat amuñu amuñu alliance bu ñu àndal amuñu coalition bu ñu àndal suñu coalition mooy njaboot gi njaboot gi lañu ànd rek te njaboot gi ñooñu di woote leader yooyu nekk foofu te suñu njaboot lañu mm-hmm. ndaxte bu ñu ñëwoon fi xay yàlla sala ñu topp suñu ginnaaw kon kon nag comme demee na noonu ñun ñoo lañ njaboot ñëpp mu mel nag suñu discours ah dañ koy dañ koy ubbi rek xàll ko ci bu njëkk bi wax ak ñoom ba ndaxte ñoom ñooy wax seen ay njaboot ñu woone à la retenue kalm mm-hmm. calme nga xam ni ñoom ñooy am na discours va t yoo xam ni leader bu ko fi wax rek sa njaboot bu sànko yaa ko sànk waaw parce que léeg-léeg nga ne diw ne maa fayu wala diw ne ñu naan diw moo tooñ bu ko fekk ku nekk kenn du xam ku tooñ kenn du xam ku fayu hmm. te fekk na benn discours bu ndaw mooy incendier loolu lépp boo defee ñu leen di woo ci loolu ñoom ñu ànd ak dal woo seen njabooti si dal ak ci jàmm ndaxte li may wax bi su nekk rek dañu ñaan yàlla bu ñu paree la le 24 février le 25 ñun suñu école ubbi ku nekk dem jàngi ñu war a liggéey liggéey ñu war dem ci marché yi dem ci marché ñu war a dem tool dem tool hmm. ku nekk xëy dox sa soxla yàlla nag mën na ko yàlla ko yàlla def yàlla yàlla tàppe xol ba ñëpp am loolu bi des tamit discours tamit dafay dellu ci nga xam ni ñooy ñooy njaboot gi di militant yi parce que dafa am militant am électeur électeur ñoo gën a bari te doo leen dégg ñu wax militants ils sont infimes mais coow li yëpp booy xool ñoom la ñu leen di woo ñu tamit ñu ànd ak dal di wax ni politique jarul loolu ànd ak sa leader jarul loolu sa leader mu soxla si yow du nga dem xeex ñu jàpp la ramasse la ba doo voté la 24 li mu mooy nga voté ko comme dafa soxla nga voté ko ne yow toogal fi nga war toog nga ànd ak discipline te xaar sa consigne de vote bu jotee le 24 nga dem voté ko après nga ñibbi sa kër defe naa ni loolu moo gën ñuy topp seen ginnaaw ñuy xeex te it nag defe naa Sénégal fi démocratie bi toll nii ak fi euh, euh, niveau de culture Sénégal ci wàllu électoral toll defe naa ni permettre yenn yi ba tax na dañuy fustiger yi nga xam ne moo fi am yëpp di ko ñaawlu jusqu'à la dernière énergie di wax ji plus jamais di wax ni yàlla bu mu fi amati yàlla nañ ci yàlla musal si lu mel noonu yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiq ah, woon rek dañuy gàttal ci wax ci ndaxte xeeru kala maa xala wa dal hmm. bu ko fayee ñu wax rek boo xam ne day ëmbaale ñëpp hmm. bu ko fayee bu bu abeñee mun wax am si lim siy wax moom it parce que ñoo bokk discours man su ma waxoon yóbbaale ko ñoo bokk discours hmm. su waxee yóbbaale ma ñoo bokk discours parce que du wax lu ma ëpp du ma wax lu ko ëpp ndaxte ñoo ñoo bokk jaboot bi yëpp loolu loolu wuñ ko moom xam na loolu man xam naa loolu bu ko fayee imaam tamit ñu leen di ñaan seen presse ajuma ñu ko siy dugal ñu delluwaat njaboot yi ñu delluwaat njaboot yi fi ñu war a li ñu war a ni ñu war a mel depuis toujours ñu mel noonu mooy de citoyen modèle citoyen modèle du koy yàq du koy toj kaar du koy sànni xeer du koy saaga du jullit nag du nasaraan kenn amul benn diina bu dis bu digle saaga yàq amul au contraire sax dañ ko dañ ko dañ ko dàq kon yàlla yàlla delloo ak suñ sago defalu jàmm defal sutura